rab wi tëb yuuxu ba waa asamaan di ko dégg mu ne kaan mooy cappi-cappi ci sama kaw pom bi sikkeen mbaw bu mag bi umbal baat bi donte sax ragal na ne ko man mii man sikket bu mat ba motti mboolem xeetu bëy maa ci ëpp doole gën ca rëy te man ragaluma la